Leewtoo TV ñu am mbégte tey jàkkaarloog yéen di leen présenté seen premier numéro show du week-end émission bi tudd show show du week ñu war ko présenté sac samedi. Euh, émission bi nag ñu am mbégte dalal ci ñaari phénomène de l'arène mu nekk Body RFM ak Yawou Dial ñaar ñoo xam ne nii kenn dootu leen présenté ci làmb ji def nañ fi nekk lu nekk bay nañ seen waar tey ñu war a jàkkaarloog ñoom waxtaan ak ñoom ci actualité waxtaan ak ñoom seen carrière waxtaan ak ñoom lépp lu tourné ci biir làmb Body maa ngi lay nuyu. asalaamaaleykum asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. auzu billah ñu ngi leen di fay. jërëjëf euh, Yawou Dial maa lay nuyoo looy nuyoo. waaw laa ilaaha illallaah Muhammadu rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam. Mhm. bu ma sante sama ndey sant sama baay sant sëñ Abdou Karim Mbàkke borom Maxrim ak laa. Mhm. di sant sama sëriñ Ablaye Wadd. Mhm. di sant Ibrahima Sall seeti maam sant bu baax di sant nag Pape Thiel si ko sant bu baax di ko gërëm. jërëjëf ñu démarré émission bi kañ nga gëj a bëre. eh gëj naa bëre depuis bi gaynde ñibbisee euh, fekk yaaw ngemb ko ndey ndeysaan ngemb mu yàgg ba <laughs> na ko na ko dóorama dóorama gay buddi mu daanu man ko ah yow tey aju nga ma dee mun man non non damay jër revanche gay na ma tey rek tey tey nga xam ni tey nga xam ni hamburger hamburger yi ma lekk. ak épizaa yi. Eh. di nga xam ne bu la jàppee coow lu jeex. gay jàpp yow ngem na ma ngem boo xam ne ah ne de côté am naa problème. Eh. ma dem sama maara bi ne ko ah am na lu xew de mun ma ma ko ah yow moo ngem sa waay de. Eh. mbaa duñ ma dóor ma daanu mun waaye gis na bu ma fontoo laa la xanaa ngemu ma la <laughs> mu ne ah yaa ma ngeen waaye yaaw man dama ko xaw dama xaw ci ay mbiram. waaye yaa li ma dimbali. Uh-huh. ba ma gisee yow di ko di ko romb di ko di di di reetaan reetaan bu neex wala ah am naa ndam am naa ndam laa nga ah yow mii ma gis nii man la man lay jàppale léegi muy bu mu nuy durga daanu ma ne yow bu dee maa ñëw maa dimbali ngir yàlla gën laay bu dee mu di ñuy durga man nag ma tiit nag na uh-huh. maara ah gën a la yokk ñaan léegi am naa problème ndax gay ñi mu toll nii ah am naa yàq dina métti si man de mm. waaye balaa mujj sàjjee mhm. bëre ba yàgg ñuy bëre ma dëpp waaye ñu ni gay dem ma ngay bëre jàpp ma dëpp ko ñaaroon ba ma daal di jiir bu bi nag mhm. yaaw ne o oh, ngay ne yow yow yow yow ngay waay waay waay xam nga ñooy làmb ñun ñoo bokk si làmb man ban boo gisee liggéey mooy siisu si pet xam nga mooy liggéey si làmb sama tey su ma diisoon kon heure kenn waxatu ko kon fu ñu waxee roi des arènes ya sant santam di million kon loolu ñu ma nar a génne si làmb sama bakkan gis yi bu ma a dégg rek mooy problème wala am instant yi non maanaam gis nga boo jëlee mbir mag mbir mag tey boo waxalee ci mbëri mag ku mel ni yaaw jox wala bëri war nga ne ka yaaw wala bëri yow ko dama bëgg liggéey nga nga comme taxawee mbëri ndaw yi xam nga wax kii wax mu bàyyi mbëri na dañ leen a xaw a beddi mbër yu mag yi am nañ seen association tey liir nañ ci suñu làmb ne jeunes lutteurs yi également créé nañ seen association mais pourquoi pas yéen phénomène yi également ngeen créé seen non non ñun bëree grand combat ñu bëri petit combat animé lamb ji ba mu taf ba mu saf sap toj loolu ndax ci ñun eh, man bañkat la man am na mbir yu fay ko cent mille deux cent mille ah, loolu ñoom booy ñëw dama ne li jëntuma te sama ne loolu koo lañu comme la xarama am combat dama lay dara bu jeexee gauche ngay jàmm dara droite boo ñëwee ñu <laughs> ma def ñu tiimalee micro damay xam ne suba li nga xam ne kat kàddu yaa jàll moo am solo barke sëñ Tuubaa gën nga bëre waaw waaw waaw di santaat yàlla bu baax du nuyu sama mbokki bool bool yi nekk euh, di foncé waaw gën nga bëre est-ce que da nga bàyyi làmb wala yaa ngi ci làmb ji ba léegi ah mais mais làmb làmb bàyyiwuñu làmb waaye na fi ñu toll nii bàyyi laa mu jot na. Hmm. lu tax mu jot. ndax mu jot mooy day tollu moment boo xam ne nii da nga yor njaboot. Hmm. yor ay tu tànk. pourtant la am yor ay soxna. Hmm. yor soxna. te soxna si mën nga nekk ci koñ ba di bëri. yow nga nekk phénomène. du dégg ñu lay tudd. ci lu bari ak ñuy séddale xaalis di ko dégg. ba ci laay wàdd jamono laay wàdd maa ngi koy sant di ko gërëm. ba mu wooyee gars yi ne leen kat banque bi nàngam banque bi nangam xaalis bi eh, nàngam mais man boobu boobaa boobaa man xam fan laa taxaw. maa ngi tax ci barrière palais ba di déglu. man bu ma amoon si balcon ba. <laughs> waaye nga ca balcon ba. boo ma gënoon jege gat gi. waaye nag may bari naa siyaare pale ah man. pale man pale bal dugguma fu léegi ah. mais yow waaye doo wax Macky mu. mu wooñu bu ko defee ma ma doon kii na Macky ci Macky. Ah. waaye ma doo ñu ñu ñu yaa ngi Macky mu fekk mu kër Ablaye Wade. waaw ba ma tudd ba dafa ree ba aj mu ne ko monsieur le man kay boo ànd ak sama sëriñ Ablaye Wade foo teg fenk naa yor animation bi seere lu gars yi wax mu xëpp si kaani yow daal naa di tuuti mu tere la coono jeex barke sëñ Bamba. da ngeen muy lan yu mag yi. nga wane Balla Gaye Balla Gaye toog Modou Lo toog wala yeneen boy toog ñu ni i ii Balla Gaye na sax nañu baax Balla Gaye ku ñàkk ñaane nga noonu ba Modou Dieye toog mais moo tax ne yaaw ak gaynde ngeen ne ñàkk fayda gaynde bu noonu ni tey jii nii mm. day ñëw toog ci plateau ñu ñett lañ ñëpp ñooy phénomène ah. d' accord léegi Bodi gën nga euh, bëree mais yaa ngi ci làmb ji kan mooy sa prononcé adversaire koo xam ne ni yow yaakaar nga ni kii war nga mën a bëree moom ñeme nga euh, jàkkaarloo moom ci biir làmb ji waaw làmb ji ki ma doon topp sax di bëri moom mbuqat la. kan la muy booy boobu ñuy wax wulli te temps yi dégg naa sax ci benn télévision la ne. wulli wulli ay 15 minutes lay wulli foofu di wax ku mel ni. kooku ñuy wax euh, góor gi Samba xaw ma. non nan arrêté ci wulli. waaw ñeme nga jàkkaarloog wulli. waaw non wulli sax xam nga li ma mën a wax mooy lenn. non ndax ñeme nga jàkkaarloog wulli. non damaa am na ma waxoon. loo waxoon damaa waxoon euh, yow ku bëreeg yaw rek war ngaa bëreeg man. Ah. ku bëreeg. waaw waaw kon déjà yow ndax dañoo dañoo bëri ci làmb lu yàgg mag moom seetaan nga wulli ak liiru jaan Gàmbi seetaan nga combat non non non xam nga wulli wulli coow lee fi nekk rek ak mm. ñu koy jay mm. muy jayaxu ak nekk ci dër dër dërul de dërul de ni mi def loonu di def loonu moo ko tey non non day wane rek pour moom dër na te mm. mi ngi mi ngi tooñ yàlla la mu dër dër bu ndaw la dër kon daal bu ko bëggee yokku boo yi pare na pour corriger wulli non non non tey fii man xam nga dama noonu tey damay taxaw ci média uh-huh. di di santaat bu baax suñu boroom bi santaat tamit waxal ci wulli après di nga sant xam na ma wax dama ne na ma ni mhm. gis nga wulli seet seetaanal combat bi yow ñeme nga jàkkaarloo wulli bi non kii sax xam nga kii kii nooy dóor la xam nga nooy dóor <laughs> xam nga nooy dóor day dóore de non kii maanaam xam nga li ñuy wax xaal mm. nooy dóor la te xaal la ah. coow lee fi ne dafa funki ni rek mais xaal la foo dóor mu toj mais est-ce que est-ce am na physique bu war a jàkkaarloo Wouly xoolal. non non xam nga damay wax chaque jour ne leen man ak yaaw bu ñu gisee ci ñu toog di waxtaan ci plateau nii. Uh-huh. mën nga ñoo ñàkkal fayda xeeb ñu mais bu làmb sàjjee nga bëgg. te hmm. waaw bu làmb bu làmb sàjjee. Uh-huh. nga bëgg. mais Wouly mii may wax nii xam nga tax ma wax pour pour moment. Ah? Uh-huh. dama ne woon dama ren incha allahu taala. damay bàyyi làmb ji. waxtaan ak Matar Ba. ak sumay staff. mais wala dina tax nga ñëwaat. non non non bu ma bu ma amoon benn rek maa ngi moom rek man ma bàyyi zibile. Ah, zibile xam nga damay zibile xam nga damay mooy dafa toll foo xam ne nii. Uh-huh. lam amatoo ci dara. Uh-huh. bu dul say nit. Uh-huh. ndax damay bëri tey benn combat sax colle yaaw woo ma. may ma dara. daal ngay xaar kon. noo non mais wuli kii kii kii sa waajooju moo koy yëkkati nii rek. waajan mooy waajooju waajooju Samba moo ko yëkkati nii rek. <laughs> mais nag maa ngi sant Aziz Ndiaye bu baax a góor dëgg ngi noonu ku baax a ngi noonu. d' accord dinañ si ñëwaat. waaw yaaw yow. waaw temps yi gis nañu benn problème yaa ak Lirou Diane est ce que mën nga si revenir. waaw xam nga mooy keroog bu ñuy dé déggee fii rek hôtel boobu nekk booru Almadies. xam nga lu mm-hmm. ñuy réunion noonu ba réunion bi ci xam nga damaa mën a sànni xel mu mën a mbalak. ma kii ma képp ko fa. ne ko mbër xanaa mënoo bàyyi mbër bu mag bi ngay kii noonu quoi. ah. mi mënoo sama rakk ma ko noonu du sa rakk moo lay may xaalis. Balla Gaye de moo lay may xaalis. ah mooy sa papa ñu dama leen noko ma mhm. a ko maa la man mhm. man ëpp doole mhm. man boo ma dépassé dama lay duma te noonu la fa demee waaye man bandigal gaston keroog mu demee bëggoon tëgg sama combat ak maag moom fekk Balla Gaye fee ne euh, suñu nga si dañuy per Balla Gaye dee ko yàlla ko yàlla yërëm ak Idrissa Diallo xam la xarama na ñu ne ko léegi dama bëgg tëgg euh, yaawu jaal ak liiru pare mais Balla Gaye moo ne yaawu jaal doo bëri ak liiru Balla la ma xam nga Balla xam nga man man bandi laa. man Balla xam nañu ba bandi la moom xam nga loolu Balla nga xam ne. na mbëri fi ñu fu kenn ku nekk koo man moom xam na ko. kon yow Lirou dafa ragal. bu at bi nii su ma su ma toolee sànq yi su ma doxee si kaw bu aree day wàcc. barke si ginnaaw bokk ma ñoom cycle Lirou bu ñëwee ci liiram du sori. ndaxte bii lim de fekk nga am palmarès mais boo ñëwee ci lim benn mbër rek foo <laughs> ñu ne dañuy lim ba fàtte ñu ñu daan te loolu du neex dégg. mais pourtant pour moom moo leen moo leen raw ci la am kenn. liiru non non bokk non c'est liiru lu ko jàppee ak ñun li ñu jàppee bokkul. Hmm. mu lii euh, liiru moom dafa ko gaa yi jàppee spécialement. ñun ay san ay ay communauté lamb jëlaguñ ñun toj stade ba tudd si ñun loolu daan bëree quoi bëggal doomu aadama ñu nekk si ginnaaw gars yi di yuuf def nag suñu nekk waaye man automobile mais à part liiru kan oto yu baax yëpp lañ koy loué non li ñu jaan wuli bi nga nakkoon jël daaw mhm. wuli mais xam nga gars yi mooy suuraay xam nga bëri yaaw jar da ma ragal mën nga ëpp dëgg yaaw jar cent kilos waaye bu at bi nii pour moom damay bëri yow te mosoo sama kaw comme li wuli doxee si kaw li ñu jaan nii ah. non man na benn combat bu fi nekkoon nga arrière ba génn de te indi yaaw jaare guule suñu deuxième combat suñu premier combat bu ma ko yóbbee arro eh. eh. eh. bu ne non bu ñu yëkkatee loxo yaawu jaal day tudd Ablaye Wade xam nga yaakaar ni ñu bëriwaat mais arbitre nii pour ma tal xis ba ñàkk combat ba te xam nga sama combat Pape Thiès tëggoon condition normal rek mu war ma am ëpp dal ba arbitre nii ba dama lay topp di déplacé wu di gis bu du daan la mais boobu maa amul entraînement moo tax sama ñaari combat yu mujj yi mu ñàkk mu combat Eumeu Sène Bombardier bi ak Balla Gaye la am fa ndam day war a Gambie ñàkk dem a dem Jolof ñu ne ko am na à part Lirou Diane kan nga yaakaar ne war nga ko mën a daje ak moom non non man Lirou Diane laa bëgg a rek hmm. xam nga Lirou instant bi nii nii nigul géew nan nan nagul sa gaa ngi xaw favoriser ko xam la kaana sama ko bëgg a képp man man bu dee sama sago man Pape Thierno bi sax yaa wone ka ah barke Seydina ma gis nga bis bu gaa yi tëggee yaa ñak lii daal siwar ñi simu sax amul benn télé bu nga ko wax barke dem mais gaa ay rek leen def du ma ko dama ko xam après xam baa la dee yaa ko tudd Pape Thierno mi ngi tëgg benn combat Tapha Tine ak euh, Boy Niang 2 non combat ba ma ko déggee daaw sama xol def sa doom bi sama xol sedd si benn côté si benn côté sama xol seddul ndax tafaatin suma waay la te boo ñaan ñu bokk pikin mu doon sama waay la xam nga man combat bi wax dëgg si bëgguma ko woon sax man waaye la foofu moom ku daan sax après mooy loolu quoi xam nga la waaye man bëgguma ko woon moom man ku xam yaaw jaan xam ne yaaw jaan bi mbiru pikin la quoi am na waaye nag man moom man benn mbër ji jaaratuma mais ñaar bu mënoon mbër ma sa ñëw di combat ceeg bàyyi mu njëriñ loolu kii sama combat yembalu kii dama ko daan jël ba kii quatre fois laa ko daan beneen la ma daan bu dee RFM tamit gàcce ngaa la ma daanaka juróomi yoon mu daal benn yoon. <laughs> Eh, xam eh, eh, nga ki ñu ko waxee li ñu ko gaynde gaynde daan na fukki yoon ak juróom ñaar dafa étiré daan na ko ñaari yoon. bu kat daan naa ko ñaari yoon itti bu jaar daan naa ko ñaari yoon. waaw mais yéen ñaar est-ce que duñ ko leeral. non non Macky Sall rek laa moom diggante moom Macky Sall laa bëgg a dox fu mu toll waaw monsieur le ah, président Macky Sall ak kii liñ liñ euh, koy wax ak kii liñ ko wax kii euh, soxnaam si euh, kii maire Moussa ku baax la man tamit mais man moom bëgg naa nag kii mu teg ko loxo fu mu toll quoi bëgg waaw ndax waaw dëgg maire Faye Sall moom ah, Amadou Sall moom Moussa moom dernier combat ñoom ñaar moom dafa war a mën a leer non non kii moom sama diggante maag moom xam Ablaye Wade bu nag Mouhamed sama doom mi ngi ko bëgg Ablaye Ablaye bu nag ko bëgg Mouhamed da ko bëgg at mu njëkkee daan na fekk Abdoulaye Wade gën a nekk xale bu ndaw daa ñu gaa seetlu ko Abdoulaye ñu ko yaa daan suñu papa comme Abdoulaye du tàngal frontière yi daal si xaw a xopp kaane ko mais mu xamal moom comme yéen a ngi salaay salaam laa ko tuddee ndax taw ay arfan la judd ma dugg sëñ Ahmed Sall xam am na sant yàlla man daal li may ñaan yàlla kii yàlla ko yàlla réussir état Sénégal jàppale ko ndax bu di RFM dafa sonn si ndàmb tey bu doon métier bi nga yor jàpp day xam yaa ngi Sénégal ministre emploi Dame Diop léegi yàlla ak Souleymane Soumaré ak Bamine Ndoub ànd ak ANSECOA fils ñu def benn créé un litre

ku mel ni yaaw yaa ngi jox ko xaalis su boobaa moom xam naa tool moom dootul fay ba yaayu mu diine <laughs> la ma wax nag lépp moo am nag ne gars yi toog def ensemble national toog nag li waaw waaw koy tontu mooy mu wax. maanaam ñu fexe formation. di jàppale mbër yi. man comme am naa métier dangay ngay xool suma métier tey. Mhm. pour nit toog wax ko sax du gaaw. ku mel ni Bécaye Mbaye parce que maa liggéey këram. da koy wax boo di ni ko jàppale ku mel ni Ngagne Diagne du ma am liggéey def ma naan. Keba Kanté non Keba Kanté dem Keba Kanté. Eh, maanaam man man man ak yaaw man non di jiboo ngeen. jiboo waaw moom xar ay xar lañu. daal laa xulóom ak sa waaw. muy Keba Kanté sa doom sama doom waa ñaar ñi ma damaa xulóom. bu soobee bu soobee yàlla Aziz Aziz Aziz xoolal yaaw Aziz xool ma. ci yàlla. rakk ji mooy sama xarit mooy sama turandoo xarit te te xale ak baay xarit ak baay. Aziz sama xarit de. waaw déet eh, non eh, attention. non non eh, mais dama dama Kéba Kanté mu sama xarit la ma. non di ngeen jubóo Kéba di ngeen jubóo. jubóo léegi grand grand frère. li kay li sa waay wax. maa ngi ciy bu baax. ku mel ni maire yi nekk ci ci gox yi. naa leen taaya. Ah. nañu mën a jàppale. Idrissa Diallo nag yàlla na ko yàlla yóbbu xaru àjjana maa ngi koy jaare waa Dalifort yëpp. Mhm. affaire yi moom métti na loolu wax dëgg si yàlla. Euh, man sama rakk bu góor boo xam ne sama rakk bu jigéen bu ñu ummi moom la bàyyi leen boppam. Sidi Bambara te mu nekk sama benn gaan indi lu ma Ablaye dafa si teraanga loolu la ko defee teraanga. waaw moo tax maa ngi koy jaale waa Sénégal yëpp di ko jaale nag Khalifa Sall. waaw ak kii nu ñu ko nu ñu ko tey euh, kii euh, président Sonko. fa la ma fekk keroog bu kontaan na Sonko. Mm. waaye yaa ma ne ko Sonko vraiment kontaan naa ñu ne ma. waaw vrai opposant la. waaw waaw ko defal ton frère yow fu ñu fekk Idrissa Diallo mi ma yaaw vraiment mun xam ne ni jàmbaar ñoo bokk maam Abdoulaye sa maam ma ne ko kontaan kon am na xam sant yàlla mën daal du ma ñaaw ak kenn dama teg dama teg wasalaam grand frère comme li yaaw wax laay waxaat mhm. euh, nit ki euh, maanaam ñoom ñi ñoom ñi nekk di woote yëpp benn lañu ñoo bokk ndey ñoo bokk baay daam daam lu ñuy wuti rek mhm. ku ci jot mhm. ànd ànd jàmm ak salaam maanaam mi ngi mel ne làmb tey yaaw tey ñu ngi wax ci làmb mais bu làmb saa joon day mel na nga ne xay xanaa ki du yaaw ak buddi comme noonu la mm-hmm. kon déjà ñoom nañu fexee ànd ak dal bokk ndey bokk bàyyi soo ko nag ton frère ndax Pikine gi mu nekk mm-hmm. ay samay nit ñu baax ñoo fa nekk ak moom ku mel ni Isaaxa tamit booy boobu mi ngi def ay formation di jàppale ay xale d'accord si maire yi nag war nañoo def comme li tey euh, kii wax man tey dama am métier man ñaata xale laa yor tey d'accord ci loolu la ci loolu ñëw am nga sa am nga sa métier am nga sa atelier pourquoi pas doo sàkku ci waa làmb ku bëgg defar li nga li nga mën a defar mu ñëw ci yow nga defaral ko mais kooku wax naa ko Matar Ba wax naa ko Matar Ba wax naa ko bataay xanaa waxati mais est nit ñi xam nañ exactement li ngay def non ma ne cité li ngay def yow loo mën a def loo xam ne ni ku ko soxla ci waaw ma barkeelu ci rek ma barkeelu ma barkeelu ma sama ci rek ma sama ci rek ma sama ci wala ko tey. non Pape Thiané ko doon. mais Pape Thiané suñu temps. la mën de. non Pape Thiané bëgg naa ci moment ah. léegi euh, les grands frères. oui euh, gis nga. li ngay defar gis nga yow mii. Mhm. ku ñu jàppaloon rek ñu dem. waa si tey li ngay lan ngay defar lan la buuti defar ci atelier non non damay defar ay forcerons. oui damay liggéey ay meubles. Mhm. ay lal ay superposés. Mhm. da ngay xool man fi muy exposé tey fi nekk nii. léegi Matar ba dafay jaar. ñoom ak ngañ daañu publicité personnellement daaw jéeg yaa ñu defar pour bu ñu defalee tabaski. voilà man même madame Karim sax maa leen maa leen jox ay pour. ay fourneaux yu ñuy lakkee. exactement même même dama leen même làmb ji ñu si boppam ñu jox ay la ku mel ni tey euh, ku mel ni tey Pape Sow bu Kër Ndiaye la dama leen di may fourneaux. Mhm. ay ñoom ay ñoom ay ñoom maire monsieur le maire ñoom dañuy nekk sama xaj yoo xam ne sa maire. sama xarit lañu waaw ay four affaire lal ak yooyu yëpp. bu mais mais mais mais affaire làmb xam nga loo ci xam nga loo ci affaire làmb dama ne la dama ne la seen seen parcours yi seen parcours yi tey ku mel ni tey Bombardier ku mel ni Tyson tey Tyson sax maa maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi lancé waat message ba muy wax cak cak cak gidd gidd cak cak cak gidd cak cak cak gidd gidd cak cak gidd cak cak cak gidd gidd cak cak cak gidd cak cak cak gidd gidd cak cak cak gidd gidd xam nga kon xam nga kon xam ni xam nga kon tey waa Tyson daf daf ñëw jëriñ njukkal ñun ndax Tyson 95 may ànd ak moom. boobu boobu moo woon ci dara dama doon jàng métier. nekk ci ànd ak Tyson. Tyson Tyson bëgg li nga xam ne tey mooy projet yi. Uh-huh. man Njawar sa xarit laa sa doom day laa. mais man sa Tyson sax dama joxoon rendez-vous fan yii passé. waaw gis nga koy dem ma mu fexee mu fexee ay. ay maanaam pour exposition ay ay maanaam formation mm-hmm. ku mel ni monsieur le maire ay ñoom Isaaxa Diop ak gars yi ne sama maire ginnaaw raay yooyu mm-hmm. ñuy def formation mooy mm-hmm. xale yi man lu bon ba amoon naa ci cinquante personnes yoo xam ne nii problème terre bi moo taxoon tey mu tasaaroo ndax terre bi suñu sàcc woon sama presque trois quelques millions ci samay bagages mais nag li ma bëgg nag mooy parcours boo xam ne dina yaatu ma def espace ah. def ci ay métier bu defee yaaw dina fa jaar léeg-léeg xool woo woo woo kenn ku neen jël fa juróomi xale indi message bi jàll tàggatoo li may tàggatoo nag mooy maa ngi ci sant bu baax di santaat yàlla mhm. di wax kii maa ngi préparé Bougane sama xarit la mhm. maa ngi ci bëgg a préparé pour leen ay œuvre leen ko ku mel nii Balla Gaye ñoom gars yi maa ngi fexe paré pour defa leen ay njoowaan ah déjà ko wax sama sama sama sama sama soxna maanaam Marème Faye Sall sama soxna lu ko tuddee mooy Marème Marème Diallo sama sama soxna mhm. ñu ngi ko tuddee Marème Diallo kon déjà Marème Faye Sall maa ngi ma maa ngi préparé pour yow incha allahu taala ma defal ko njowaan bu baax. ñu jëm ko yóbbu. di ñaan su borom defaat réew mi ci réew mi yàlla defaat jàmm ci réew mi. amiin amiin muy nuyuwaat ñoom Kéba Kanté ak soppe yi ak xarit yi. ak ñi nga xam ne waaw waaw waaw Kéba sama xarit. waa di di waa di gërëmaat sama di gërëmaat sama ndey di gërëmaat sama baay di ñaan sama waajur yàlla yàlla yërëm leen jéggal leen. suñu borom yàggal Cheikh Sidi Muxtaar mu yàgg fi xalifatul ki nga xam ne mooy am muy Cheikh Tina Tidiane suñu borom yàggal leen fi ñu yàggal fi képp koo xam ne yaa nekk ci làmb yàlla wéral cër yi saafara jàngoro yi dàq catluwaay bët waay làmmiñ waay di doole waat sama xarit bi mhm. di ko ñaan di wax gaynde fàttewuma ko maa ngi koy ñaanal mais yaaw jaal maçon spécial mhm. sant naa ko gërëm di ñaan ci képp koo xam ne déglu na ci sa message mhm. na nga xam ne affaire bi temps may nuyu waat waa atelier nuyu waat gone yi nuyu waat ñu ñëpp di wax waa gars ñu ñëwaat li ma waxaat rek mooy sama wàll liggéey ak sama wàll fi ma nekk sonn bi metti na. jërëjëf muy ma fu ma nekk. Mhm. te bëgg naa ñu dimbali ma te yàlla tax. Mhm. waaw kon dèjà lii dafa neex kon Tyson. li ma doon wax si Tyson yi noonu. kon Tyson yaaw yaaw yaaw waaw man daal maa ngi ñaan yàlla xam nga Sénégal yëpp am jàmm ba Karim Wade ñu ñëw si si jàmm ak salaam. Mhm. da cee Abdoulaye Wade wax dëgg sax man sama lépp la gën a lool sama maam la sama papa la sama lépp la te doom ji écartement bu mu ko écarté fee ne sori bu ñu ma woon léegi nag damay ba nangu ko damay dem këram zéro nees ma di ñaan yàlla Sénégal yëpp am jàmm këram ñëw si jàmm ak salaam Sénégal gën a mën a xam nga as ndaw borom ndikku ndikku maan ak Mansour ak ñoom Aldo Coulibaly Por ak sama sàmbeen bi nekk la quartier si biir bëgg Serigne Touba ñu ma leen sant ba di leen di sant waa Buun waa Pikine waa Araya Dial waa dal bi sama mbokk safar supérieur yi ak sama mbokk apprenti yi ñëpp maa leen sant bu baax di leen gërëm di sant suñu waa ikri Pikine Mboro di sant bépp mbiru Pikine bu dëkk Pikine rek bu am combat bu ne yàlla yàlla may ndam di ñaan yàlla nag seen télévision bi yàlla nag yàlla réussiral si darje Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam si barke alxuraan karim si barke Serigne Touba mhm. lu euh, mu mën leen yàlla ma déwlu ko. joxe numéro téléphone ma numéro téléphone. Mhm, numéro téléphone 77 boo di RFM 77 waaw boo di Sénégal RFM boo di Sen TV ah. boo di Obama. 77 bu 77 558. 558. 46. 46 40. 40 Youssou Ndour la maa ngi ko santaale bu baax a baax di ko gërëm 31 jërëjëf comme ñu waat waa Sénégal yëpp jërëjëf ñu nuyu gërëm mi ngi noonu di waat sama xarit Pape Sow bu Kër Ndiaye mi ngi woon noonu li ma doon seen premier numéro show du week-end c'est euh, Leewtoo TV di leen ko présenté chaque samedi neexoon na yàgg na ñu ngi leen dox dig daje <laughs> ci yeneen i jamono jërë ngeen jëf waay Come on, come on, Tyson. Move, move, move, move, move. Yeah, we're so good at